فزت بزار في الأزانة سيدة di sant soxna jaar rek ndax génn jigéen ju am màggal wax dëgg yàlla moom dong moo ko am ndax borom Tuubaa lu mu am rek daanaka li soxna jaara liggéey la di sant bu baax rek di ko ñu fekke ko at yu bëree bëri bëri di ñaanal kenn ku nekk bu déwénee nga ñëw màggal màggal gu ko dàq waaw ñi ngi sant bu baax. waaw maa ngi leen di fay ah, waaw eh, ñi ngi sant yàlla li tax ñu ñëw fi nag. dañ fee ñëw pour njariñ parce que dañ fi ñëw at mu nekk luñ fi ñaan ci maam jaara ñu am ko ak sëriñ Touba euh, te nit ñi nga xam ne ñoo fi daje boo leen gisee xam ne ay caaxaan indiwu leen fi te ñëpp bokkuñu dof dañoo ñëw pour njariñu fi am loo xam ne lii dañ koy jëlee ci maam jaara pour jariñoo ko nga xam ne Serigne Touba itam dafa liggéeyal ñëpp pour ñu jariñu koo gis mu ñëw fii rek jariñ a tax mu ñëw fii waaw moo tax ñu ñëw ci màggal gi pour siyaare maam Jaara mi nga xam ne eh, moo fi liggéeyal maam Mor Anta Sali kan eh, yàlla moom ko fii mu def fi ñetti at xawma ñaari at ak lu topp ñetti at yàlla moom ko fii te lu mu liggéey lu bari Xuru Mbàkke la ko liggéey waaw moo tax nag ñu ñëw fii ci su boobu pour gën fee jariñu loo xam ne lii ngir Serigne Touba rek ak Maam Jaara moo tax ñu ñëw fi waaw loolu laa leen rek ah ah gi xanaa buñ fi neex na ah, bari nay nit ñoo xam ne ñi dañu ñëw pour jariñu fi loolu rek tax ma ñëw fi moom waaw moo tax at mu nekk ma ñëw fi siyaare maam jaara waaw yàlla taasuñu si barkeem li nga xam ne lii moo xam moo tax ñu ñëw fi daal pour jariñu ñaan fi loo xam ne lii danañu ko jariñoo ëllëg sunuy doom danañ ko jariñoo maa ngi tudd alxaaji Basiiru Ja mu sell wi Touba Kër lool sax maa ngi koy dund de fi ne nii wax dëgg yàlla maa ngi koy dund moom maa ko gu neex laa am tey de gu neex mosoo fee ñëw nag maa fi dootu ñëw màggal gu mel ni woo fa dëgg yàlla moom mosuma ko am moom Touba laa jógee Touba Kër Niang waaw maa yàgg tere màggal gi nag fa dëgg yàlla saa yu may tàggoo dañoo bàyyi lànk ne dañoo baay waaye tey jii màggal gi yow doonu ma ko rate moom boo fa dëgg yàlla doonu ma ko rate lool laay sama mbokk yi màggal bu fa dëgg yàlla ñu koy dundee mbégte lool dal bi si am nag macha allah macha ngi sant yàlla bu baax di ñaanal si Muntaxa sunu borom yàggal ko lool te defal ko ñoo ngi fii ci Poroxaan ànd ak mbokki taalibe yi màggal gi nga xam ne dañu koy wooteel Soxna Jaara yàlla dogal na ñu màggal ci woon fii ci dëkk bu sell bi wuy si wooteeb Serigne Touba bi ànd ko mbokki taalibe yi sunu borom dogal nag ñu ñëwoon ci barab bi ak jumaa ji siyaar ci woon soxna si euh, ñaan si ci xiwali ak teraanga yi ko ak mbokki taalibe nga xam ne ñoom la ñu baaxoo àndal ci euh, ndaje yu bare bare bare yàlla dogal nañ mu tase fi ak sunu wëllëre sëriñ Dame Faye sëriñ saale Salifo sunu borom dogal nag mu amoon yéene lool ci sunu jëmm yi ngir bis bi nga xam ne moom la ñuy màggal li ci fàttaliku soxna jaara ñu sànni si ay kàddu li mu niiw niiw kon ñoo ngi sant yàlla bu baax di ñaan ñëw gi ni ko sunu borom dogale ci ñun ñu ñëw si jàmm ak salaam yàlla nañ sunu borom may. ñëpp ñu delluwaat si jàmm ak salaam te Cheikh mu Mountakha sunu boroom yàggal ko lool te defal ko ak wér te mboolem lu fi ñaan sunu borom nungul ko ko te fulal ko ko te defal ñu ak njëggal ak ay xewal yu bare bari soxna si sunu boroom nungu ab liggéeyam te ful ko barke Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Babacar Ndiaye Thiargane wasalaamaaleykum wa rahmatullah wajhal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokki julli nii mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mboolem koo xam ne teew na ci bis bi rek ñu ngi leen nuyu bu baax di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa ñaan yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér yi wax ne bis bi moom bis la boo xam ne bu ñu am yaakaar ci nangoo ñaan la ndax ah, ki ñu koy defal da di jàmbaar lool muy soxna jaaratullaahi moo tax nu fi waaye ñëwee rek ci sa pas-pas nga amee ko noonu moo tax ñu ngi ci soññ mbokk yëpp ñu xam ne bërëb bii bërëb bu yaakaaru la bërëb bu nit mën a sàkkoo lu baax la kon nañu yeesalaat pas-pas yi bu baax te xam ne dañoo ñëw ci bërëb boo xam ne sëriñ bi dafa wax ne poroxaan moom képp koo xamante ni nee nga fi jàng rek ma fekk la fi kon bu yàlla dogalee ñu ñëw fi nañu yeesal pas-pas bu baax a baax te jiital yéene ji te fas lépp loo xamante ni bëgg nañ ko rek jàpp na ne suñu borom dina ko jàpp nal bu soob yàlla bis bi daal bis la boo xamante ni yoonu murid bi yëpp la amal solo ndax suñu yaakaar ji tey ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba soxna si nga xam ne mooy waajuram dama jàpp ne maanaam nu nu jàppe sëriñ bi rek war nañ koo jàppe nu ko raw loolu laa gëm ne moo mooy mooy euh, moo di ak murit murit moom ni ñu koy faral di waxee rek boo xasee ba ne murit laa moom amatut xalaat amatut xaar lépp loo xamante ni yoon wankee woote rek da ngaa war a dox jëm ca kon ñu ngi waat mbokki bi yëpp di ci jiital suñu bopp ci liggéey yëpp sëriñ bi ndax liggéey bi moom amut noppalu amut wàcc comme ni ko sëñ Bassirou Abdou Khadre di waxee rek murit du wàcc nañuy def waar wu jeex rek ñu dal weneen kon comme yàlla dogal na ci waar wii lañ nekk tey ni ma ko waxee léegi rek nañ yeesal pas-pas yi bu baax a baax te fas yéenee dox jëm ci di ñaan lépp loo xamante ni def nañ ko fi wala ñu liggéey ko fi te jëmmi yàlla ji rekk tax ak soxna si ñu ñaan suñu borom nangul ñu ko te fulal nu ko te làqal nu ko fi yàq yëgut barki Seexul Xadim alhamdulillahi allazi yusalli ala nabiyil muntaxal musalli salla wa sallama alayhi la fi laali wa sahbi wa mawalahu wa amara al amlaka idan bi sala alayhi zaidan bi zalika ula summa ilayna wajal xitaaba takarman wa anfusan ataaba faqumtu xaa'ila mamtisaali amri jamilin jalla an misaali ya amiran bi an nusalliya ala nabiyina muhammadin babil ula ilayka minni busarun muqaddama fi xidmati allazi alqadimu qaddama ya man su'alu ghayrihi indi dalal id kunta li bi karamin ya dal jalal ya allah ya qarib ya mujibo salli ala allazi bihi tujibo sayyidina zil mu'jizati bis salam بالآل وأصحاب مزعزع الزلام وكن لي الدار وكل معي وكل لي سائقا فوق مرامي بكل واجعل بجاهه آياتي صافية لك به معا أجور الضافية واجعل بجاهه آياتي صافية لك به مع أجور دافية وليكن بأفضل العطايا يا من محى العيوب والخطايا ردا ورحمة من الله البديع خير من الدنيا وما فيها جميع jërëjëf sëñ daam kon ñoo ngi sant bu baax a baax ñu ngi doon barkeeloo loolu ci màggalu Poroxaan di ko def addiyee soxna jaaritullahi maam Mariama Busa ñoo ngi ñaan lépp lu fi waay ñaan yàlla na ko sunu borom nangu ci barkeeb soxna jaaritullahi maam Mariama Busa yàlla na suñu borom yëkkati leen yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci site bii di barkeelu ci màggal gi sunu borom defal leen ak yëkkatiku bañu di leen dégg mbooleem fi ñuy dégg site yëpp rek ci barke maggal gi barke borom Poroxaan. aousu billahi mina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 من هبتدا هو أرجو عنده نسلا بسم الإله الذي قرآن قد نسلا من هبتدا هو أرجو عنده نسلا سبحان رب كريم جاد لي كرما بأن ألاسم قرآنا هدى وجلا من كان لله كان الله جل له ومن توسل بالماء له خبلا ألا أصلي بتسليم بلا حدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء لله قد تبت أيضا وهو يغفر لي سنبي ويستر حيبي بالذي فضلا خطابي وتاتيني إجابته نسيار باخ باخ magal gi neex na moom a taxawaay yoon Sëñ Tuubaa yak lakka si mu tax ay xar dëkk ko jox waaw déedéet magal si mu taxa moom yàlla na fi yàgg wér rek sunu sëriñ la mu sama taalibe la sama taalib sama taalibe la si mu taxa moom kay mu yàgg fee ak waaw alxames ba tey ñëw fi bu ñu jógee ba ñu jógee Touba ba tey ñooy dem Kaolack bu ñu jógee Kaolack ñëw àllarba ñu àllarba ñëw Porokhane ñun Porokhane yàgg nañ ko def lépp ñoo bale kër yi dafa dëkk bi set dëkk bi daal dëkk bépp ñoo ko set setal daal yoonu suñ suñ mu tax daal lu mu bëgg ñoo si lu ñu teree nu bàyyi ko waaw sëñ bi sëñ bi lu mu bëgg moo si waaye lu mu teree rek si waaw jigéen ñi moom wàllu jigéen ñi wàllu jigéen ñi moom jigéen ñi bàyyi xesal bàyyi mees bàyyi xef bàyyi lépp daal da sëñ tere daal nañ ko bàyyi mu wóor ibaaru soxna jaari dal ma nekk soxna jaara daal la nekk soxna jaara daal la bëgg mu wóoru nekk soxna jaara li soxna jaara bëgg mu def ko soxna jaara ba mu taxal ah, am àll ba amul mat mu dem xari gaalam soxna jaara mu yombul yombul rey nag ñoo ko yomb ren du mañ du gone du mag waaw yow mooy yow mooy yàlla nga ko fi yàgg wér bak suñ Tuubaa la bëgg yàlla nga ko suñ Tuubaa def nan nan dégg nan dégg ndëgal tere ay ndeg ay ndigalam tere ay tereem parce que Sëñ Tuuba boo ko defee am ko boo ko deful rek doo am dara Sëñ Muntaxa ne ne ku mu lu ma tere dëkk bu ko mënul ne delluwaat fa dëkkoon sayyidana